الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu tomb waxtaan wi mooy moo doon kayfa takunu daawa ila allah woote jëme ci yàlla naka lan ko war a taxawee wala ñu ne kayfa takunu daawa ila al islam woote jëme ci lislaam naka lan ko war a defee bu mu ci mun a doon dafa laaj xam-xam dafa laaj formation ndax sunu boroom subhanahu wa taala moo bindu doomu aadama xalaqa allah al insaan wa askanahu fil ard yàlla bindu nit ginnaaw ba mu ko sàkkee bind ko mu daal di koy wàcce ci kaw suuf dëkkaloo ko fi waaye moom yàlla moom mu musul bàyyi doomu aadama bi mu nekk ku gëlëm walla ku réer ba du xam fu mu teg tànkam moom yàlla moomu bi mu bindee doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf dëkkaloo ko fi yittewoo ay mbiram nag boole na ci booleel nag doomu aadama boobu lépp lu doomu aadama boobu soxla sunu borom subhanahu wa taala préparer na ko ci kaw suuf defaral na ko fi ba doomu aadama du fi am jafe-jafe fal yanzur il insaanu ila taami anna sababna almaa sabba thumma shaqaqna al arda shaqa فأنبتنا فيها هبا وإنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم kon loolu moo lay wan ne yàlla subhanahu wa taala bi mu bindee doomu aadama wàcce ko ci kaw su bàyyiwul doomu aadama xataa li doomu aadama di yittewoo moom ak ay juróom sunu boroom subhanahu wa taala préparel na ko lépp lu mu soxla woo ci lekk ci naan ci lu mu war a sangoo mooy lu mu war a def ay làmbaayam lu mu war a sol wa anzala alayhi fi muxtalifi l usuur manhajan ci mbooleem état bi bi yàlla bindee àdduna ba fii nu toog ci mbooleem état bi yàlla wàcceel na doomu aadama système bu mu war a dundee la tàmbalee ci aadama bu yonent bi mujjee ñëw kum ci mun a doon yàlla indil na la système boo xam ne moom nga war a dundee ci kaw suuf bu yomb waaye bu ànd ak njubu yàlla moo tax chaque jour yàlla day wax ne fa man tabia hudaya fala yadillu wala yax wala yashqa ku topp sama njub doo texee di waaye doo réer zalika alkitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqin kon li yàlla wàcce ci programme bu war a doomu aadama war a dunde lan la ëmb mooy dund doomu aadama ak njubam ak mbaaxam li baaxal nit li tax doomu aadama di texe fi kulli zaman wa makan innama yakunu bi ittiba manhajullah wa tarxi ma siwaahu li tax doomu aadama di texe fii ci kaw suuf di am jàmm di dund dund gu neex mi ngi tegu ci charte bi mooy nekkal ci li yàlla wax soo nekkul ci li yàlla wax ak programme boo mën a am ak bu amoon ay ato yi naaw sax du tax dund bi neex su ngeen xoolee dund bi nu nekk moom moo gën a avancé ak dund bi mag ñi nekkoon waaye ku xam ne da ngay gis ne dund ba mag ñi nekkoon moo gën a baax moo gën a neex suñu dund moo gën a baax da ngay dégg léegi ñu ne la atum bërigo dërëm bërigo gerte dërëm tey kan moo la fi jaay barigo gerte dërëm ba ci ñu doon tabax démb da ngay dégg ñu ne la saako ciment 250 tey kon du benn noonu nag la àdduna commencé woon chaque jour ñu gën a baax rek ñoom la seen gëndu di gën a baax te ñi gën a baax jamono mooy ñu ñu jiitu xayru naas qarni waaye doomu aadama dundam yëpp pour mu baax mu ngi tegu ci sart bi mooy mu tegu ci yoonu yàlla mu bàyyi lépp lu dul yoonu yàlla wa anna hada siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun borom bi subhanahu wa taala nee na lii mooy sama wu yoon wu jub xocc wu ne coow na ngeen ko topp bu leen topp ñall yi su ngeen ko toppee taqalikoo ci sama wu yoon loolu laa leen dénk pour ngeen ragal yàlla beneen bi mooy islaam mooy diine ji mujjee wàcc jóge asamaan alquran mooy téere bu mujjee wàcc muhammad mooy yonent bu yàlla mujjee yónni islaam mooy aaxirul adyaan assamawiya wal quran aaxirul kutub assamawiya wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaxirul anbiya wa rusul islaam mooy diine ji yàlla mujjee wàcce alquran mooy téere bi yàlla mujjee wàcce yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy yonent bi yàlla mujjee yónni waqad amarahu llahu an yuballiga haza din ila kaafati nnas yàlla digal na ko diine ji na ko ne coppet jottali ko ci doomu aadama yëpp moo tax yàlla ne ko wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnas bi ma la yónni ci ñëpp laa la yónni yàlla wax yu ci moom alquran ne ko man yàlla subhanahu wa taala maa wàcce ci yow alquran wa awha ilayhi hadha alquran li unzirakum bihi wa man balag yàlla wàcce fi moom alquran ne ko ne ko ñëpp jot na nekk waaraate pour ñëpp moom yonentu boobu alayhi salatu wasalaam bi ko yàlla yónnee jox ko islaam ne ko nag na ko joxe ko ñëpp ya ayuha nnas qul ya ayuha nnas inni rasulullahi ilaykum jamia araf 158 yàlla ne ko yow muhammad waxal nit ñi ne yonent nga bu yàlla yónni ci ñoom ñoom ñépp kon ñaareelu tomb bi mooy wa daawatu ila lislam hiya afdalul amal woote jëme ci islam mooy liggéey bi gën ci liggéey yi su nit ñi xamoon li yàlla dige ci woote ak importance bi mu jox woote jëme ci islaam loolu tax yonent yi bi mu leen tànnee liggéey boobu la leen jox te yonent yi ñoo gën ci nit ñi lan moo doon liggéey yonent yi mooy daawa kon liggéey bi gën a rëy bi yàlla am di ko liggéeyloo nit ñi mooy woote nit ñi jëme nit ña ca moom léegi nag ñun bu ñu bëggee dund lislaam ne du ñu nekk ay wootekat wala du ñu jàng du ñuy wootee ça veut dire que dañuy nekk ay taxankatu guddi te loolu moom moo tardel diine bi tey tout court ne borom xam-xam yi du ñu woote wala ñu néew ci ñoom ñooy woote. loolu bokk na tey ci li freiné liggéeyu islam bi liggéeyu yàlla bi mooy découragé ñàkk yittewoo liggéey bii di liggéeyu lislaam te moom mooy afdalul amal moo gën a rëy ci liggéey yi lu tax lima fiha min hidayati nnas ila siratin mustaqim ndax lu tax mooy la ca nekk la mu ëmb moom liggéeyal yàlla pour jubal nit ñi yóbbu leen ci siraatal mustaqim parti politique yi nga xam ne ñoo ñu wër xoolal tey bu ci benn militant nekkee fa mu dëkk mu fexe ba quartier ba wala ba koñ ba wala ba dëkk boobu yëpp topp parti bi mu nekk kooku ban gëdd la ko njiitu parti bi di jox bu fekkee ci mouvement présidentiel la bokk waa jooju lan la ko président def koy def ministre ndax day xam ne kii ci liggéeykat yi suqali parti bi la bokk waaw kon ñun bu nekkee ay jullit te diine ji ñu nekk indi luñ ko benn nit nan la nu yàlla di jàppee Abu Bakrin Saddiq radiyallahu anhu wa arda keroog ba mu duggee ci lislaam allah barik fiki cheikh jazakallah Abu Bakr Saddiq ba mu duggee ci islam bi mu ñëwee rek ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu dugg premier jour dafa indi Ousmane ibnu Affan deuxième jour mu indi Ousmane ibnu Mazum ibnu Mazum troisième mu indi Arqam ibnu Abil Arqam quatrième jour mu indi Bilal juróom-ñaari fan saa yu Abu Bakr xëyee dina jàpp benn nit ci loxoom indil yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko kii man maa la ko jox bés bu nekk maa ngi jégalu bés bu nekk saa yu Abu Bakr xëyee dina indil yonent bi kenn bal sax da ngay jàng asara mubashirina bil janna ñi yonent ñi yonent bégal ne leen da ngeen di dugg àjjana ñaata lañ ah al mubashirina bil janna ñaata lañ fukk lañ juróom-ñaar ñi aboubacar moo leen dugal ci islam ñun ñu toog fii ci biir jàkka ji ngeen wër ma nii kenn ku nekk ci yéen ñaar bi nga nekkee sunnit ak léegi ñaar nit nga dugal loolu mooy wax bi da nga jàpp ne yow nekk nga jullit rek nekk nga sunnit jeex na quoi déedéet kon bu doon loolu la Aboubacar keroog ba mu duggee mu ne yonent bi lan moo ma war yonent bi ne ko li ma war moo la war mu jóg premier jour mu indi deuxième mu indi bis bu nekk mu indi bal da ngay jàng histoire islam abu kan moo ëppale lu mu mokkal ci hadis yonent bi alayhi salaam ko ëpp lu mu ci mokkal Abu Hurayra mokkal na 5374 hadis 5374 kan moo ko dugal ci islam Tufaylu ibnu Amrin Tufaylu moo ko daawa Omar ibnu Xataab jigéen moo ko dugal ci islam Fatima waaw allahu akbar su fekkee jigéen ñi sax dañuy tuubloo nit ci jamono yonent nun tey nu nekk ay kilifa lu ëpp sax ci ñun juzu amma bi boog mu ngi suñu bopp yonent di wax na balligu anni wala aaya nga mokkal juzu am ma te yow aaya lañ la waxoon jottali ko dara génnul loolu moo freiné liggéey islam bi du leneen te liggéey bi gën a rëy mooy loolu ndax li ci nekk ci jubal ay nit yóbbu leen ci siraat al mustaqim wa irsaadihim ila ma yusiduhum fi dunya wal axira ak lii texeel nit ñi yonent boo xam ne imam ali la an yahdiyaka allahu bi rajulin waahid xayrun laka min xumri naan la loo xam ne Seydina Ali ne ko nga fexe ba kenn baax kenn nit mu jub moom moo gën ci yow nga am gëlëm yu ne gàññ jamono yooyu gëlëm yi ba tey sax loolu mooy alal ba tey jii fi ñu toog ca naar ya gëlëm yi mooy alal sunu borom subhanahu wa taala mu ne waman ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin kan moo gën a rafet ay wax waaju woo nit ñi jëme nit ñi ci yàlla kooku kan moo ko gën a rafet jëf kan moo ko gën a rafet wax ba pare mu boole ci di jëf jëf yu baax waaye boole boppam ci jullit yi wa daawatu ila al islam ayuha al ahbab risala sharifa wa hiya wazifatu l ambiya woo nit ñi jëme leen ci islam mooy mission bi gën a rëy ci mission yi képp ku ñu yónni mission nga koy doxi ak ku la mën a yónni ku mu mën a doon mis doxi ci mission yàlla bi moo ëpp importance moo tax yonent bi ne tànk bu pënd ci yoonu yàlla safara du ko laal tànk bu pënd ci yoonu yàlla safara du ko laal loolu moo tax saxaaba yi xamoon importance daawa moo tax ñu tasaare àdduna ci àdduna bi yëpp sa saxaaba yi tas fi lislaam dañ doon wax ne ñoom rus nañu dajeeg yàlla ëllëg ay nit di dem safara te jottaliwuñu leen diine ji xuus nañ ba ci océan Atlantique bi ñu waat ci yàlla ne bu leen wóoroon ne ginnaaw géej gii ay nit a ngi fi danañ xuus géej gi joxe ji islaam waaw li lay wan ne saxaaba yi dañoo gëmoon daawa soo wëree adduna bi da ngay dem Inde ñu wan la bàmmeelu yonent nga dem Syrie ñu wan la bàmmeelu astaghfirullah bàmmeelu saxaaba da ngay dem Inde ñu wan la bàmmeelu saxaaba nga dem Syrie ñu wan la bàmmeelu saxaaba nga dem Iran ñu wan la bàmmeelu saxaaba nga dem foo dugg ci nga gis bàmmeelu saxaaba yi lan moo tax saxaaba yi seen bàmmeel yi tasaaroo ci adduna bi moo lay wan ne dañ doon yóbbu lislaam te duñu woon di nelaw te pourtant yàlla maye woon na leen loo xam ne mënoon nañoo tëdd nelaw lu tax waxuma Madina Màkka soo fa jullee ñaari raak ñaata la tolloo ak fii Màkka Màkka ñaari raak Màkka ñaata la fii ah li nga wax da nga ci am yaxin tontu leen ma de ñaar raaka màkka laa wax ak fii si soo doon julli ci jàkka ji ñaar raak ak ñaar raak ci kaaba gi noonu la toll amoo Medine nag xoolal saxaaba yi dañ faa bàyyi loolu dañ faa bàyyi loolu tey ñun kenn su fa demoon da nga naan yi ñëw naa màkk terminé sawaay dem leen rek ngeen toog man tey fii xoolal ñoom dañ faa bàyyi loolu ban ndox moo gën ci ndox yi ñu bàyyi ko fa bàyyi fa maqaama ibrahim bàyyi fa safa ak marwa bàyyi fa hajaratul aswad soo demee jàkk yonent bi yonent bi ne diggante sama minbar fi ma daan toog di xutba juma ah maa bay na rawdi rawdati fi yonent bi faatu fi ñu ko denc ak fi mu daan toog di xutba yonent bi ne foofu rawdatun min riyaadil janna sahaaba yi bàyyi ko fa wër ci àdduna bi tey bu doon kenn di ci ñun ñu ne foofu la toog rek di naafila ba dee kooku lu ñuy wax ci moom parce que dañoom dañoo xamoon importance su daawa keroog ba leen yonent bi waxee ci aj gu mujj fal yuballighi shaahidu minkumul ghaib yéen ñi fekke tey joxe leen mbir mi sahaaba yi am na ñoo xam ne delluwaatuñu woon seen kër ndax xam importance su daawa foo ñu delloowaat daawa gis nga bañ doon daawa ak tey du benn jamais ña fekke woon démb laay wax nag waxuma tey boobu gis ngeen nii mbalit yi nii nii caaxaankat yi di jële nit ñi boobu noonu lañ doon jële nit ñi ñu nekk ay sunnit partout fépp c'est parce que boobu nit ñi ñu ngi yëngatu ci jàkka yi ci marché yi ci mbedd yi grand place yi oto yi ba ci football bi te stade am na sunu papa boo xam ne ci ñi ñu formé la bokk biñ ko yónnee na dem daawi ji pompier xam ngeen pompier ah pompier mooy fi ñu daan jële oto yi balaa ñu koy indi boo marisé moom bi mu ñëwee fekk oto yi mu ne ñii fuñ jëm ñu ne Casamance ñii fuñ jëm ñu ne Kaolack ñii fuñ jëm ñu ne Saint-Louis ñii fuñ jëm ñu ne Fouta mu laajte di laajte di laajte di laajte ba ñu wax ko oto yu bëri fuñ jëm mu ne am na oto bu manqué de gars yi ne ko ban oto mu ne ko bi jëm aljanna ana ñu bëgg a dem aljanna ñooñu ne waat ki li muy wax nii rek mu taxaw commencé bayaan nit ñi kook sóor yi dañoo doon bàyyi li ñuy def ñëw di di déglu am na ñu yëgoon ci oto yi dañoo wàcc ñëw di déglu pour wax leen ne daawa dafa loolu mooy liggéey bi gën a rëy mooy liggéeyu yonent yi alayhimu salaam ndax ñoom ñoo gën te yàlla loolu la leen jox wa qad bayyana rasul sallallahu alayhi wa sallam anna risalatahu fi lxayaat wa risalatu atbaa'i hiya daawa ila allah قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين yonent bi alayhi salaam nee na sama mission man yonent ak mission ñi ma topp ci diine ji mooy woo nit ñi teg leen ci yoon wu leer maag ñi ma topp sell ñeel na yàlla moom mi ma musal ba nekkuma bokkaale kat mu ne wal muslimuna amma wal ulamau xaasa wal muslimuna amma buñ ko waxee mooy jullit ñëpp ñoo ngi ci biir wal ulama xaasa ñu sette nag borom xam-xam yi man dañu def daawa ila allah woote ci yoonu yàlla ñu ne fardu ayn farata la su ko ñëpp bàyyee farata la su ñuy jógee dem def ko wàcc na ñeneen ñi su ko ñëpp bàyyee ñëpp am nañ bàkkaar te nag nañ xool léeg-léeg ma ne gars yi yéen waa Jimbo sax ñoo leen mën waa Jimbo ak waa Malboro léeg-léeg ma wax ko ay ay ay ay sunit ne leen yéen waa Jimbo ak waa Malboro sax ñoo leen tane ñu ne lu tax nga wax loolu ma ne man damay wër Sénégal. lenn saa yi ma dem ba au fond ci biir Casamance ma daje fa ak waa Jimbo ñuy daawa di jaay Jimbo jël ay oto def ci ay paan ah def ci ay woykat solo leen ay mbax ne solo leen ay tiset ñuy tasaare Jimbo ñooñu fu ñu jógee fu ñu jógee ñooñu Dakar yenn saa yi nga fekk waa Malboro ñu solo ay casquette ñu jox leen ay moto ci biir àll bi ñuy jaay Malboro fu ñu jógee Dakar wala ana suni yi ñu ngi naan ataaya ah waaw kañ la daawa bi di dem te lu doy waar mooy ñëpp ñoo gis tey ñuy dund sunna dañ leen daawa wala ngeen daaw la léegi yow bu la daawaa bi nga ñëw nga ne man du ma daawa kenn bunt bi dama koy tëj te dañ laa ubbi loon buntu bi nga dugg dañ ubbi buntu bi ñeneen ñi ñëw beneen bi mooy gis nga doomu aadama dafa mel comme butéel doomu aadama moog butéel a yem da ngay jàng science ñu ne la butéel du vide bu ci dara nekkul ngelaw nekk ci butéel du vide de soo gisee butéel mu too fi nga yaakaar ne vide vidul air banque ci loolu la science di jàngale te loolu moo am butéel du vide moog doomu aadama ñoo yem doomu aadama bu ci mbaax nekkul rek mbon ñëw soo daawul ñu daawa la li ngay wax rek waaw àllarbay Moussa wala dibéeri Firawna terminé munoo fay nekk ci kaw suuf si ne yow li yàlla wax da nga koy def yemale ko ci sa bopp tout court jeex na mënul nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeral na mission moom ak mission ñi ko topp mu ne lan la mu ne daawa loolu nag ci kaw borom nit ñëpp jullit ñëpp la ko yonent bi teg waaye wal ulama aw xaasa mu jagleel ko borom xam-xam yi mu ne ñooñu maamuruuna bi daawa ila al islam kama qala subhanahu wa taala wal takun minkum umma يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون yàlla mu ne il faut mu am mbooloo mu fi nekk wal takun minkum umma il faut am ñu fi nekk ñu taxaw këcc tem ñooñu lan mooy seen mbir yad'uuna ila alxayr ngi woo nit ñi ci lu baax mais quartier bi koñ bi il faut am mbooloo mu fi nekk di wax ci lu baax sinon lu bon envoyer ko bu ngeen amee complexe ne da ngeen di daawa ngeen dem tëddi nelaw mais ñeneen ñëw yor seeni sabar di tëgg ba fajar du ngeen fi nelawee kenn du fi nelawee su ngeen bañee ne du ngeen woote ñeneen ñëw tëgg fi soirée tëgg kenn dëkk bi yëpp loolu rek kese la kon affaire bi xëccoo la nii la waaw mbedd mi dañ koy xëccoo saa yu lu baax dawee lu bon ñëw ci dëkk bi samp ay tànkam kenn du ko fi mën a jëlee te tey loolu moo am mooy découragé ak càggante xaw ma nan laa koy tuddee bu ñu seetlu ci mbokk yi dund sunna bu ñu sàgganee taxaw woo nit ñi jëme nit ñi ci yàlla ak yonentam waaw di woo nit ñi jëme yàlla ci ak yonentam te loolu li muy tekki mooy suñu woote wu rek ñu woo ñeneen wooñu waaw gis ngeen tey mbon gi nu mu baree surtout caaxaankat yi ni ñu baree ci dëkk bi mouvement yi ni ñu bëree bés bu nekk mbooloo mu bees di juddu nit ñi di wuyu waaw nit ñi nit ñi am na ñoo xam ne dañuy wër rek ni ñuy njëkk a dajal rek bu leen yàlla dimbaliwul ñooñu yóbbu leen loolu tax nga war a nekk ci mbedd bi nekk ci quartier bi nekk ci koñ bi waaw suñu defee nga def bu ñu waxee nga wax bu ñu sampee seen baas nga samp sa baas yaa na loolu kese la waaye bu fekkee ne tout le temps chaque jour moo ko sama soxna yi wala moo ko sama waa kër vendredi ci guddi jeudi ci guddi dama leen wax déglu leen ñu déglu ma ne ñii ñaan la ñu ne ah ñii de tariqa sàngam la beneen jour ma ne ñii ñaan la ñu ne tariqa sàngam beneen jour ma ne ñii ñaan la ñu ne tariqa sàngam beneen jour mën naa tegale samedi ba vendredi bés bu nekk man la ñii ñaan la parce que bés bu nekk ni ñaa ngi ci mbedd mi di di yuuxu su ko defee dañuy wax waaw ma ne waaw yéen yéen ibaadu yi ana ngeen dégguma leen de xool leen dëkk bi rek guddi li ngay romb ci ay nit yuy def ay affaire yu ñuy tuddee diine te xam nga ne lii du diine ñu ngi ciy romb ak li ngay romb yow mii fi nga bokk ñaata la programme daawa du semaine ba fa semaine programme daawa du weer ba weer programme daawa du at bu nekk benn yoon déedéet nuux bi ko yàlla yónnee mu defar tableau di defar istimaalu awqaat loolu ñuy wax emploi de temps suñ joxee benn maître ne ko jàngaleel ci classe bi balaa muy jàngale dañ koy jox barnaamij sanawi jox ko tawsi u sahri dañ koy jox année bi li mu ciy jàngale ci année bi li muy jàngale mu tibb ci li muy jàngale weer wu nekk balaa muy jàngale mu defar emploi de temps istimaalul awqaat wala ngeen ne su ko defaree bis bu nekk mu ne lii laay jàngale ba bis yi jeex mu def ko ay heure heure bu nekk huit heures laay dugg huit heures huit heures trente alxuraan laay jàngale huit heures trente neuf heures tawhid laay jàngale yonent yàlla nuux bi ko yàlla yónni muy defal isticmaalul awqaatam dafa ne inni daawtu qawmi laylan laylan baatu laylan wa nahaar lu muy tekki yàlla man damay woote guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg am na lu mu fi bàyyi est-ce que def na ko semaine non semaine bu nekk mbokk yi am nañ benn programme quoi semaine bu nekk benn yoon ngeen di woote nuux mu ne daawtu qawmi laylan wa nahaaran yamu ci mu ne summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israaran woote naa guddi ak bëccëg woote lu feeñ woote lu nëbb maanaam bu nit ñi demee sax day rocceeku dugg ci kër yi yàlla mu ne al leylu wa nahaar al alan wal israar alf sanatin illa xamsina aman junni at bu manqué juróom fukk nu de woote yow nga bëgg a ñëw ne man semaine bu nekk benn yoon wala weer bu nekk benn yoon wala mbokk yi at bu nekk am nañu rëy la daawa benn yoon at bu nekk benn yoon rëy la daawa at bu nekk benn yoon yéen ñi ngeen di wakañ la ñuy ñëw kon foo ñu changer système bi baaxul baaxul yàlla subhanahu wa taala dafa ne il faut mu am mbooloo mu fi nekk di digle lu baax di tere lu bon yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko ci hadis boo xam ne Buxaari yi moo ko génnee wax ngeen ko léegi mu ne balligu anni walaw aaya jottalil leen ma yéen ñii donte ne benn aaya la benn kon léegi bu yàlla waxee bu yonent bi waxee jottalil leen ma donte ne benn aaya la yow mi mokkal alxuraan kon yow yow moom luy sa biir yow mi yor juzu am ma sa bopp yow mi yor juzu yaasin yow mi yor kaf yow mi def kaamil bi ci sa bopp kon yow la moo la war yow yow amatoo droit dina law moo tax ñàkk dañoo ñàkk comprendre wa daawatu ila allah risalatun azima wa muhimma jalila iz hiya daawatu nnas ila ibadati llahi wahdahu wa naqlihim min alzulumat ila annuur wa zari alxayri wa zari alxayri makaan alchar walxaq makaan albatil woo nit ñi jëme leen ci yàlla liggéey bu rëy la dafa rëy waaye yitte wu rëy la encore ndax lan mooy woo nit ñi yóbbu leen ci yàlla ñu jaamu yàlla moo tax sànq mu ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah xoolal ki nekk ci quartier bi di jaamuloo nit ñi yàlla suñu suñuy suñuy dëkkandoo dañoo amoon benn góor gu baax buñ daan jàngal diine diñ yar saa yu génnee ci koñ bi même ñi dindul sunna am na ci ñoo xam ne dañu ne paa bi su ma ko gisee rek sama xel ci yàlla lay nekk am xale yu jigéen yoo xam ne góor gi bi mu gaañoo maanaam ñi ëpp ñi ko doon jooy mooy ñi meesu ñu xeesal ñi ñoo ko doon jooy di xëm di dugal seen bopp yi ci biir suuf lu tax am na koo xam dafa ne paa bi saa yu ma ko gisoon rek sama xel ci bilaal lay dem waa gis nga importance su daawa importance su ñu nga dëkkal nga am ak moom jàmm am ak ñoom relation bu baax di leen woo ci yoonu yàlla ah soo leen romba ñu toog nga ñëw toog nuyu leen waxtaan ak ñoom ci diine loolu mbokk yi dafa am solo mais naka ngay nekkee ne yow da nga bëgg a woote ñi ngay woo boo leen rombee doo leen nuyu ah boo leen rombee doo leen nuyu xamoo leen sax ñëw leen di daawaa yow am ak ñoom benn relation ñooñu mën nga leen woyow jamais jamais moo tax kii woote ci yoonu yàlla li mu war a njëkk a def mooy fexe ba ñëpp bëgg ko ñëpp bëgg ko benn xale bu jigéen dañ koy takk mu wax ñu mariage am ñu jël oto dem mariage bi amu deux bi ñu wàccee comme xamuñu kër gi ñuy laajte mbedd yi fi ñu laajte ñu ne ci kanam la fi ñu laajte ñu ne ci kanam la ñu yegg si fekk ay xale yu petit camp ma ma téye benn xale bi asalaamaaleykum kër diw la ñuy laaj mu ne diw kooku ma kan benn geneen xale bu taxaw fa ne ko eh mooy mooy ibaadu bu mën a nuyoo bi rek kooku la ku mën a nuyoo ki gis nga ko xale xale xale bu ndaw mooy mooy ku mën a nuyoo ki ça veut dire que kon kooku ku mu romb ci mbedd mi lay nuyu loolu loo ciy dégg mooy kooku di la romb di la nuyu est-ce que bu ñëwee di wax ak yow di nga déglu wala doo déglu est-ce que bu la nee taxawal taxawal xaar ma da ngay taxaw wala da nga doo taxaw est-ce que bu la nee kaay soxla naa la da ngay ñëw wala doo ñëw c'est ça le problème. xoola yonent bi buñ koy laaj ayu islaamil xayr lan moo gën ci lislaam mu ne tutimu taam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam taarif diina ji lu ci gën mu ne jox nit ñi lekk ñu ne lan mu ne tasaare nuyoo koo xam ak koo xamul koo romb nuyu ko soo ko xamee soo ko xamul parce que loolu dafa am lu mu lay ubbil laa tadxulul janna xata tuminu wala tuminu xata taxaabu ala adullukum bi cheyin wahid ida faaltumuhu tahaababtum afsu salaama baynakum kaay leen du ngeen dugg àjjana dul ngeen gëm yàlla du ngeen gëm yàlla dul ngeen bëggante kaay leen ma wax leen loo xam ne bu ngeen ko defee di ngeen bëggante mooy dee leen nuyoo waaw doo nekk mukk ci koñ di romb mbooloo say moroom di leen nuyu am ak ñoom jàmm ba nga woo leen ñu bañ ñu wuyu si ba nga leen soxla naa leen suba heure sàngam sama kër te duñ ñëw kon woo nit ñi mbokk yi jëme leen ci yoonu yàlla yitte wu rëy la ndax mooy woo nit ñi jëme leen ci ñu jaamu yàlla moom rek ak nga toxal nit ñi génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer nga jële leen ci place yu bon yi ñu nekkoon yóbbu leen ci dëgg lisa yaxtaaju man yaqumu biha ila al ilmi léegi nag lan mooy ngànnaayu kii woote ci yoon jëme ci yoonu yàlla soo demee ba am pas pas soo demee ba war a yëg ne da ngaa war a nekk wootekat li war a njëkk ci yow mooy nga jàng nga jàng waaw tomb boobu tamit da ngay gis ci li ëpp ci ñun li may wax mooy démb su nit ñëwee jot sunna guddi yu njëkk yi premier yi ci tegu yëpp da ngay gis waa ji day jàng mais tey mbokk yi li ñu gën a soofal ci seen dund mooy jàng naka la nit di nekkee jullit te jàngul naka ngay nekkee jullit te yow mënoo liir arab naka nga mënee ne man ab sunnit la mënoo liir arab loolu loolu musiba la kon su fekkee da nu bëgg a woote na ngeen yëg ne ngànnaay li njëkk li wootekat di yor mooy mu am xam-xam ndax yàlla kat bi mu tànnee yonent balaa mu ko yónni daf ko jàngal iqra la ko wax jàngal mooy al ilm am xam-xam jàng man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al axira fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma maan fa alayhi bil ilmi wa man arada al ilm fa alayhi bil quran wa man arafa quran arafa rabba wa man arafa rabba daa ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ko foog ñu jàng soo bëggee àdduna foog nga jàng boo bëggee alaxira foog nga jàng soo bëggee boole ñaari foog nga jàng boo bëggee am xam-xam da ngay jàng alquran naka ngay waxee ne man dama bëgg a nekk jullit dama bëgg a wootekat bëgg a nekk wootekat te yow jàngoo muslimu saxiir mënoo koo liir mënul nekk suñu benn borom xam-xam ci mag ñi baax ñi ñu yar la daf ñu doon wax ne dem conférence day tàngal rek dem tour day tàngal dem tam de formation day tàngal waaye du ñoral de soo bëggee mu ñor da ngay jàngi ah tàng xam nga lu ñu tàngal ak lu ñu togg mu ñor bees tàq tàng jër ñu wekk ko est-ce que moom lu ñu tàngalee am soo bëggee di ñoral da ngay jàngi nga bàyyi tàngal kon suñu ngànnaay lu njëkk pour ñu nekk ay wootekat ci yoonu yàlla mooy dañuy jàng ñaareel ci ngànnaay yooyu aussi mooy alfiq mooy ñu dégg li ñu jàng dëgg la léeg-léeg dañuy jàng ndeysaan waaye duñ dégg li ñuy jàng duñ xam nuñ ko wàccee duñ xam nuñ koy joxee duñ xam nuñ koy waxee loolu day am yenn saa yi dañuy jàng ba sonn mais duñ xam nuñ koy wàccee jàng hadis bi leeral na benn waay bu rëy juróom-ñeenti juróom-ñeent fukki nit la rey ak juróom-ñeent ñaata des mu nekk téeméer benn mu ñëw ci benn borom xam-xam mu ne ko damaa bëgg a tuub mu ne ko soo tuubee yàlla du la baal mu rey ko muy téeméer mu dem ci faqih mu ne ko damaa bëgg a tuub su ma tuubee yàlla dina ma baal mu ne ko waaw kee aalim la kii faqih kee dafa jàng mais déggul kii dafa jàng dégg li mu jàng loolu mooy fiq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na rahima allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha summa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amina sami' man yuridu llahu biha xayran yufaqihu fi ddin nit ki day jàng ba pare xam li muy wàcc li mu jàng nu mu koy wàccee mu xam ni mu koy joxee mi ngi mel ne médecin rek loo xam ne jàng na nu ñuy fajee mais xamul nu mu koy defee yenn saa yi nga dégg ku ne sama bëñ day metti benn waaye ne ko ah booy buddi sa bëñ de demal fële pourtant mu ngi dëkk fu ñuy buddee bëñ wala nga ne ñu ne bul dem place sangam de pourtant ña fa nekk dañoo jàng nu ñu koy buddee lan moo tax ñu lay orienté feneen ah da nga dégg ñu ne ñooñu dañoo am yërmande ñooñu boo yegsee ñooñu niñ la koy defalee ñooñu nangam ñooñu nangam ah parce que ñooñu dañoo dégg xam ni ñuy def pourtant jàng nañ ko ñoo bokk ñoom ñëpp fu ñu génnee mais pourquoi ñuy daw fii di dem fële même ci jigéen ñi sax bu ñuy am doom da nga dégg ñu ne wuu rombal leen ma maternité sangam dem leen wala du ngeen koy dégg pourquoi pourtant ñiy def jàng mais am nañu xam-xam bi mais xamuñu nuñ koy defee du dem. ñu ne dafa am benn borom xam-xam fii ci Sénégal dafa am ku mu jàngaloon waa ji dem jàng bitim réew ñëwaat wala waa ji nekk ci dëkk bi jàng na da jàpp ne daal léegi raw na kilifa gi. mais li yàlla def mooy lu am ci dëkk bi kilifa gay koy def ku dee moo lay jullee moo lay sang moo lay jullee moo lay defal lépp bu ñuy tudd doom yi bu ñuy takk sëy yi waa ji nekk dafa soxor ci loolu li wa sëñ bi di def li kilifa gi di def benn bis am ku dee rek mu takk fasam daw jiit ko fa kooku ñëw rek fekk mu toog mu ne ko tey na gis nga kii dee kii nii ma maa koy jullee lu leer laa la wax mu ne ko ah bon mu ne waaw ne ko ah est-ce que xam nga leen mu ne mu ne xam nga ne kii yàlla wax na ma ne buñ koy jullee dañ ko war a biral ci kaw xam nga lool mu ne sama yoon nekk ci de en tout cas maa koy jullee bon ba ñu sang waa ji ba sang ko pare rek sëriñ bi daal di dellu ginnaaw moom mu daal dem ci kanam dafa leen sàppe yi gars yi defar mu ne allahu akbar rek mu ne bismillahi rahman rek ci kaw rek waa ji daal ne ko subhanallah mu gestu mu ne ko lan la mu ne da ngaa wax ci kaw da ngaa biiral mu ne du yaa ma ko wax mu ne xanaa jàngoo du yaa ne woon da ngaa jàng ndax moo ne woon dafa jàng ah moo xam ne ne jullee niiw kenn du ko biiral pourquoi kii ne ko dañ koy biiral rek mu biiral ko kon li mu jàng amu ci confiance ah kon li mu jàng amu ci confiance fekkee ne jàng na xam na nu mu koy defee kon du jar ñu naan ñu ko koy wax moo tax lenn saa yi nit ñi danañ jàng mais duñu xam nu ñu wàccee mbir mi imagine ki nga xam ne dafay waaraate bi mu waaraatee ba pare képp kuñ waxati waa waa waa ji day ñëwaat day waaraate kenn du ñëw li mu wax baaxul ni mu ko waxee baaxul même su fekk yenn saa yi nga dégg ñu ne tawhid dafa metti suñ ko waxee nit ñi duñ ñëw déedéet ah kay nit ñi dañuy ñëw dafa am nuñ koy waxee am na nuñ koy waxee kenn dootul ñëw am na nuñ koy waxee nit ñi dañuy ñëw suba déglu siwaat te dañuy dégg li ñu wax yëpp dëgg la waaw kon fop ñu am fiq loolu nañ ko xam beneen ci ngànnaay yu ñu war a yor ci su ma su ma bëggee ëppal waxtu ngeen wax ma ko ah dégg ngeen liñ ma may ci waxtu su ma bëggee ëppal nga wax ma ko. ginnaaw fiq mooy sabr mooy muñ woote ci yoon yàlla daa metti moo tax ci usulu salaata da ngay dégg bi mu ne li njëkk a war ci julit mu xam ñetti masaa'ila yi maarifatullah wa maarifatu nabiyihi wa maarifatu diinil islam bil adilla après lu mu teg li war jullit ki mooy ah usulu salaasa al amalu bihi wa daawatu ilayhi waaye wa sabru alal aza fihi mooy da ngay muñ lor yi juddu ci yoonu yàlla da nga koy muñ sooy woote ci yoonu yàlla lor yàlla ci fekk kii dafa soof kii nangam ak nangam waaye ñii nangam ñi il faut ñu muñ ko est-ce que dañuy wax ne dañuy woote ci yoonu yàlla te dara duñu xusi dara duñu xool duñ ñu wax dara duñ ñu dóor duñ ñu rey duñ ñu tëj ah kay léeg ma dégg ñu ne borom xam-xam dafa sàngam dafa ëppal la moo tax ñu jàpp ko tëj ko wala loolu tax ñu rey ko wallahi yoonu yàlla bi kuñ ci rey ëppaloo amoo gàcc loolu yàlla moo dogal ne dañ la war a rey wallahi buñ la ci jàppee tëj la yàlla moo dogal ne dañ la war a jàpp tëj munu ci ñàkk ndax rey nañu ay yonent tëj nañu ay yonent est-ce que yonent yooyu dañoo échec nuux ñaata at la woote junni at yu manqué juróom fukk tuuti la am est-ce que dafa échec kon naka la ñuy waxee waa ji na non c'est que moom ah waa ji dafa xaw a tàng nag quoi léegi moom ay xutbaam léegi moom ay con waaw lan la wax ma alimtu lakum min ilahin xayri jeex na Moussa loolu la waxoon Firawna Firawna daal di woote ne man maay yàlla ana rabbukumul aala Moussa dama ne woon yàlla rek lañ war a jaamu Firawna ne leen xamaluma leen keneen ku dul yàlla ku dul man jeex na takk kon du loolu yàlla moo yor ay mbiram ci wootekat yi ñu mu ciy teg ay nattu ñuñ ciy rey ñuñ ciy tëj ñuñ ciy pendre ñuñ ciy def lu ko neex loolu la yàlla wax li yattaxisa minkum shuhada foog ma jël ci yéen ñoo xam ne dañuy dee ci sama yoon bii kon moo tax il faut ñu jàng ne as sabr foog ñu muñ suñuy woote ci yoonu yàlla foog mu ànd ak muñ waaye am na beneen jumtukaay mooy alxilm foog ñu lewet ñu lewet ñu bañ a tar ci kaw nit ñi bañ la di leen koy xam nga jaxatu jaxatu xam ngeen ah xam ngeen jaxatu lu mu weex jaxatu ak niwaakin niwaakin lu gën a weex ñaan ñoo musa naan fii niwaakin xam naa booy yi moom xamuñu niwaakin mais paa yi xam nañ niwaakin xamoon ngeen ko de su ko suñ la ko doon jox xale suñ ko doon jox xale pour mu naan ko lan lañ koy defal benn damitu bekk sukkër ñu def ko ci biir seyal ko pourtant du du ki- du du suukar si lañ bëgg nga naan garab gi la rek lañ bëgg mu romb fii mais nag dafa wex te foog nga naan ko paa yi ne nañ ci def suukar bekk suukar rek pour mu mun a romb ñu jël suukar bi damm ko taf ci digg bi daal di koy def def ci tuuti ndox comme dafa wex pour mu mën a romb fii kese la mais amu ci benn njëriñ woote ci yoonu yàlla bi tamit noonu la wax ji foog ñu amle ko ba mu rafet pour jox ko waa ji mu jël ko góom bi docteur bi war a faj même tànk bu fekkee dañ ko war a faj wala loxo bi wala lenn doo ñëw rek waa ji daal di jënd jël nga gis commencé génne ay jaas yi wala ay paaka wala am na ñoo xamante ne jamono yi pikiir gën a bëri sa waay da ngay ñëw fenn rek nga gis waa ji ne pikiir bi kërëj ni ko nii nga gis ki muy pikiir moom dee bu yàgg waaw mais am na ñoo xam da ngay ñëw ñoom ñu comprendre di ko nëbb di wax ak yow ah na nga def yow waa yow ah foo jógee nii ñu ngi defar fii de mais ñu ngi wax ak yow mais am na dof yoo xam da ngay yore ñu ne ko nii am na ñoo xam ne sax dañu naan man pikiir wu ma de dañuy gëj jëng dem seen yoon waaw yow da nga dof lu waral mooy ñàkka loolu ñuy wax kon liggéey bu ci nekk mbokki jullit yi ginnaaw ilm fiq sabr xilm lépp ci nit ñi allahu akbar yàlla subhanahu wa taala mooy wax yonent bi fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galiza alqalb lan faddu min hawlik ci yërmande yàlla la la gaa yi wëree boo taroon ñàng di dóori ak di mbëkke kon kenn du la wër wala saxaaba yi gars yi dañ ko yonent bi saxaaba yi dañ ko bëggoon bëgg bëgg bëgg bëgg ba fu mu toog dañ koy wër musul toog vidde moom kese fu mu toog ñu wër ko ndax bëgg biñ ko bëgg dañ ko bëgg sax ba ñenn ñi dañuy jeex ndax bëgg biñ ko bëgg dañ koy bëgg bu buñ toogee moom duñ bëgg ñibbi ba ya sax yàlla moo leen di ne waaw na ngeen am xel toogee ba ci àgg nag kii dafay soxla boppam ngeen jóg nag bu ngeen lekkee ba pare sax jóg leen ngeen dem dafay bëgg noppalu yàlla moo leen di orienté kon li ko waral mooy lewet waaye al liin daf ndànk daf ndànk daf ndànk nit ñi mbokk yi nit ñi foog ñu yërëm leen nit ñi jamono bi foog ñu yërëm nit ñi ndax nit ñi dañoo réer dañoo sori yàlla xamuñu yàlla réer dañoo réer réer réer réer réer sànq lañ may tegal benn whatsapp lañ ma envoyé benn waaye boo xam ne nee na saf subhanallah yàlla daa tànn loo yonent bi yonent bi ay yéeféer ñoo fi nekk yàlla ne yonent bi tànnal yonent bi tànn ay jullit yàlla yónni sëñ bi ne ko tànnal mu ñëw ci jullit ñi tànn ñoom diw dégg ngeen li mu wax de mu ne yàlla dafa yónni yonent bi yonent bi tànn ci yéeféer yi daf leen ay jullit mu ne ñu yónni sëñ boobu sëñ bi ñëw tànn ci jullit ñi daf leen nangam mu ne nangam yooyu ñoo gën jullit yi jullit yee gën yéeféer yi mu ne ñun ay nangam lañ duñ ay jullit la ilaha illallah wala loolu nu ko nit di waxee kooku dafa réer wala dafa alku kooku xam nga sori na léegi nag tey yow boo waroon daawa ku mel noonu koo xam ne yegg na foofu am na noo jaaree ak moom rek day gën a féttéerlu yokk sax yu gën a bon yi mu doon wax wala mu gën ko def kon foog ñu xam nu ñuy nu ñuy nooyee ci digganteeg suñuy mbokk yi nit ñi ñu dëkkal ñii ñu nekkal pour ñu xam nu ñu leen di génnee ci réer gi ñu nekk waaye bu ñu leen bëggee fekk ci ñoom ak agression yi ak nangam rek dañ ñuy bàyyeeg mbir mi dañ naan la waa léegi yow la yàlla yónni nga ne waa ñu ne la jëlal suñ la bàyyeeg moom na nga am problème. benn xale bu jigéen ndeysaan dafa may nettali mu ne seen kër dafa amoon benn mbindaan mbindaan mi xëy rek daal di jël fukki paquetu mees léetoo ko nee na mu xool mbindaan mi rek yaramam daw mu ne ko yow yow ñaata paquet nga mees nga leetu mu ne ko fukk nee na ba fay di ñëw fii ci ndigg li sëq ci bopp bi fees del ndaw si nee na sama xol bi jeex rek mu ne ko yow boo jullee sax yàlla du ko jël ku bon nga te mbindaan mi ne ah bu ma jullee yàlla du ko jël waaw mu ne ko ah sa mees yi xëy xam nga ne yow yàlla du jël sa julli tisbaar jot ndaw si toog di seetaan télé takkusaan jot mu toog ndaw si ko doon waar ne ko yow yow doo jóg julli mu ne ah yow yaa ne man bu ma jullee yàlla du ko jël lu ma ko lu ma ko lu ma koy doyee du ma ko def gis nga jugal julli mu ne yéena ma wax ne bu ma jullee yàlla du ko jël kon jaru ma koy def comme du ko jël waaye daf ko bëggoon daawa léegi nag problème bi mu def mooy lim ko bëggoon tere ak lim bàyyi loolu moo gën a garaaw julli yu ànd ak mees ak bañ a julli bu gën a garaaw bañ a julli kon mënoon na jaar beneen yoon bu mu koy waxee ne lii fexeel mu dañ te mu ne yàlla du jël sa julli kon il faut ñu xool système bi nuñ koy defee nuñ koy waxee nuñ koy wàccee nuñ koy jegelee nit ñi nuñ leen koy joxee comme sànq nivaakin bi ñu def suukar bi du lenn rek lu dul na romb fii mën a jëriñ doomu aadama bi feebar bi da dugg ci biir rek bu duggee rek waa ji day am njëriñ bu garab bi duggee ci biir loolu mooy wax bi bu jàllee rek wax ji bu jàllee day am importance mbokk yi ci loolu ñu doon wax léegi-léegi ci wàllu daawa bu ànd ak sabr ànd ak xel ànd ak liin yooyu yëpp ay jumtukaay la ay élément la yoo xam ne mënul ñàkk ci sunu woote ndax sunu boroom subhanahu wa taala moom moo nu koy wax pour ñu ngànnaayoo ko pour ñu mën a woote ci yoonu yàlla ñu am rifq tamit rifq mooy ndànk waaye wa bazlul maal foog ñu génne sunu alal aussi ñun jàpp na ne dañuy daaw rek te duñ génne alal quoi lu nekk rek dañu koy defal waaw léegi de gars yi ne war na ñoo jënd rajo ah rajo boo xam dañ ko cotiser ñaar fukki at du mat mukk te cent mille francs dong lay jar ah te ba li ma gën a jaaxal mooy ñi ñu dëkkal ci tarixa yi daayira boo gis am na rajo ah d'accord ngeen même bu dee ñetti nit lañ dund nañu rajo nga romb ñetti nit ñuy yuux waay ñetti nit la ñu ngi yuuxu ci rajo nga romb téeméeri mbokk ñu toog amuñu rajo mais daawa tamit génne alal def cee bokk ndax bu ñu waree tabax jàkk yi alal lañ ko war a tabaxee bu ñu waree tabax daara yi alal lañ ko war a tabaxee bu ñu waree gas teen alal lañ ko war a tabaxee benn mbokk bu jigéen mooy ki ma leen doon wax sànq daf ma ne yéen seen daawa du gaaw a jàll ma ne ko lu tax mu ne ma bu fekkoon kër gu nekk bu ngeen fa wàccee saaku ceeb benn guttu diwlin benn saaku saabu ah benn saaku suukar ngeen ne paa bi yàlla leen ne dina ne waaw waaw lu mu wax ma ne ko wax nga dëgg de ah dañoo dem Sédhiou dañoo dem Sédhiou Casamance daawa ñoo fekk benn maire boo xam ne chrétiens yi dañ koo génn ci islam ñu ne ñu dem leen ngeen ziare ji ko ngeen waar ko pour mu ñëwaat ah ñu leen yéen a dëkk fii yéen lu tax defu leen loolu imam bi mu ne ma ah wallahi Saïd ma ne ko ah mu ne ma dem nañ ma ne ko lu mu leen tontu mu ne ma def ñoo wax ne yéen jullit ñi yéen a nekkoon samay mbokk ma nekk jullit dëkk fii ak yéen ñaar fukki at sama jëkkër fii la gaañoo samay doom fii lañ faatoo ma feebar kenn seet siw ma ci yéen ñaari at ma tëdd fii sama taw sama néeg bi yëpp daanu kenn seet siw ma chrétiens yi ñëw defaral ma ko ma dem nekk chrétien chrétiens yi ma faj ñoo ma defaral sama kër ñan ñoo waroon def loolu jullit yi mu dëkkal bu mu feebaree ñoo ko waroon seeti ñoo ko waroon faj bi këram daanoo ñoo waroon ut woo woote solidarité defaral ko mais chrétiens yi ñëw seet si ko ci situation boobu yóbbu ko hôpital ba mu wér defaraatal ko benn néegam tegal ko ay sangam takkal ko croix mu ne leen yéen yéen a nekk ci dëgg fu ngeen woote ma ñëw kon ñun julli ñi dañuy bàyyi sunu yëf lu ñu war a def yenn saa yi dañ koy bàyyi waaw dañ koy bàyyi kon woote ci yoonu yàlla aussi jàng ngeen saxaaba yi Ousmane Ibn Affan dafa joxe alalam ci yoonu yàlla ba lu ko yonent bi wax Ousmane loo defati yàlla xoolu ko Aboubacar dafa joxe ba yonent bi ne ko Aboubacar lu fa des mu ne bàyyee naa leen yàlla ak yonent bi Abdourahman Ibn Awf na saxaaba yi ñu doon joxe seen alal ci yoonu yàlla ñun nag fi mu nekk bu ñu waxoon cotisation 1000 francs nga ne ko ne loolu seer na seer na seer na te pourtant par jour di nga lekk di nga naat di nga ndékki ataaye lu ëpp 1000 francs ndékki rek yenn saa yi ko nekk boo demee nga jël ma kilo mburu defal ma ci ndambe ak mayonnaise ba mu tooy jëndal ma café meew loolu ñaata la loolu lépp ëpp 1000 francs bu ngoonee nga ataaye midi ataaye ngoon pourquoi loolu dugaloo ko ci yoonu yàlla kon ndeke daawa ci yoonu yàlla aussi joxe alal ci la bokk mbokk yi ginnaaw yee ñu waxoon sànq waaye ba tey ci woote jëme ci yoonu yàlla boobu sacrifice joxe sa bopp ci la bokk an nafs inna allah ashtara min al muminina anfusahum amwalahum bi anna lahumul janna ndeke sunu bopp ay sacrifice joxe sunu bopp tey li gën a doy waar mooy sacrifice boobu yaa gars yi nit ñi yaakaar na ne ñun war na nekk rek duñ dee quoi duñ dee dara duñ lal bu ñu feebar bu ñu dara dal bu ñu ci la bokk ci la bokk sacrifice waaw waaye wa maarifatul ahwal wal aadat suñu bëggee daawa ci ñi ñuy daawa ki ñu war a daawa xamuñu situation am mais duñ ko daawa buñ bëggee daawa kenn dañuy xam situation waa ji waaw waa ji dafa jàng de kon def leen attention suñ koy daawa ji ñu jàng lañ ko war a yónnee benn waaye ñëw na di daawa benn buur ñëw ne ko yow safara nga jëm ku bon nga yow buur bi ne ko saa waay mu ne mu ne ko defal ndànk yow maag firaw na ko gën a bon mu ne ah firaw naa la gën a bon nag mu ne ko yow yaa ngi Moussa ku gën a baax mu ne Moussa mu ne yàlla nee na Moussa bi mu yónni Moussa ci firaw na dafa ne faquulaa lahu qawlan layyinan wax ko wax ju nooy yow nga ñëw di ma yuuxu waa jooju dafa demoon daawa ñu daawa ko dafa demoon di daawa ji ki mu doon daawa daawa ko lu tax parce que waa ji ko ëpp capacité xam-xam kon suñuy daawa nit foog ñu xam kii ñuy daawa moom fu mu toll axwaalam situation alalam financière am xam-xamam ah agressif am yëpp ñu xam ko def ci étude yónnee ko ñu mel ni moom parce que ñooñu dinañ ko mën a ah dañ ko mën a daawa indi génne ko ci lim nekk loolu tamit ci daawa la bokk mbokk yi waaye ba tey bokk na ci ci loolu ñu doon wax mooy xam aada yi aussi aada yi aada yi waaw léeg-léeg nga gis mbokk yi daanu foofu ba bërëngu nit ñi bu ñu leen di daawa dañuy xam seeni aada tukulóor yi bokku ñoo séeréer yi aada njaago yi bokku ñoo olof yi aada pël yi bokku ñoo lébu yi aada se dëkk bi xeet bu nekk da nga am aada kon aada ñooñu ñu bugg a daawa il faut ñu am tey bu ñu demoon jóge fi dem fuuta gis nga tey boo fi jële woon ay duaat ñoo xam ne ay docteur lañ ñoom ñëpp nga yóbbu leen fuuta ñu dem naan waaw asalaamaaleykum mbokk yi na ngeen def duñ leen déglu est-ce xam ngeen lu tax duñ leen déglu ah waxuñu tugalóor duñ leen ay bee doo ko jël fi ba ngu menjeen loolu la ñuy wax duñ leen mës a déglu jolfo jolfo ara doo wiyeena waajoo mi fe xoola jàkka ji dañuy génn benn génn génn bàyyi gaa yi toog ma ne foog nga xam aada yi yéen a ngi ni toog da ngeen bëgg a takk olof sa yaay bañ wala wala wala jam ne yéen ngi ni toog e dugalóor ngeen su ngeen nee nee ne min de woon jolfo laa ilaha illa naataa doo kon foog nga xam aada foog ñu xam aada yi foog ñu xam réalité yi su ko defee nga ñoo ñuy daawa su ñuy dem tey fuuta dañuy jiital ay tukulóor ba même ci tukulóor yooyu ñuy jiital sax ah dañuy xool sant yi xool xeet bi mu bokk laa ila oo ko sàkke oo ko korɗo oo ko min keɗotaa ko mo gis nga yooyu foog ñu réalité yooyu ñu xam ko su ko defee suñu daawa dafay jàll mais bu fekkee ne dañ ko bëgg a ignorer noonu lañ koy defee ci yeneen xeet yi noonu lañ koy defee ci làkk yi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi ab yonent buñ koy yónni dafay ñëw di làkk làkk waa xeet wa loolu dafay may pacte muy wax gars yi di dégg direct ah ñun dañuy dem Casamance xam nga duñu ay sosé duñu ay joolaa day ñëw di wax olof ñu ñuy traduire mais da ngay gis am na ci ñoo xam ne ter bi day des parce que amuñu ñu dégg loolu wala ñu def sacrifice yooyu wala ñu dem ci biir séeréer yi duñ dégg loolu mais da ngay gis am ñoo xam ne bu doon tey seen mbokk mooy wax da ngay gis ñu am gëdd c'est parce que loolu moom mooy mbir mi. bokk na ci ba tey mbokk yi ci yoonu daawa mooy yi ñu doon wax sànq sunu borom subhanahu wa taala moom moo ñu ko waxal ci alquran mu ne uddu ila sabili rabbika bil hikma waaye wa mawizatin hasan wa jaadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa a'lamu bil muhtadin sunu borom subhanahu wa taala nee na wooteel wooteel ci sa yoonu boroom waaye ci hikma hikma bil hikma waaye xoola mu ne wa mawizatan xasan ak waarate bu rafet xool yàlla hikma la jiital baatu hikma xool leen ko ci al ci arab waaye mu ne wa mawizatil xasan ak waaraate bu rafet mu ne wa jaadiluhum billati hiya ahsan même bu dee discussion sax mu ne na rafet loolu suñu borom moo ñu ko wax mu ne inna rabbaka huwa alamu bi man dalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin yàlla moo xam ñi réere yoon wi waaye yàlla moo xam ñi jub kii woote ci yoonu yàlla wa daaiya qad yataarradu fi daawatihi ilal jadal yenn saa yi ngay woote ay nit ñoo xam ne dañoo réer indi la ay discussion rawatina yenn saa yi mu nekk ahlul kitaab waaye xataa ñooñu yàlla subhanahu wa taala wax na ahlul kitaab yooyu li ñuy ñàng ñàng ñàng mu ne ñu walaatu jaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan te pourtant duñu ay jullit de yàlla mu ne même bu ñooñu booy wax ak ñoom na wax bi rafet kon bu la yàlla waxee sooy wax ak kidul jullit na wax bi rafet kon booy wax ak jullit bi réer noo war a def jullit bi réer ak ahlul kitaab ku gën damaa laajte jullit bi réer ak ahlul kitaab ku gën ah jullit bi réer ak yéeféer ku gën kon il faut ñu xam ni ñuy waxee kenn ku ci nekk waaw ndax jullit bu réer moom mënul yem ak ñee kon foog ñu yéegal niveau am xamal ko ne jullit nga jàmbaar nga aka neexoon nag lii ngay def nga yokk ci ndàngam dama romb benn atelier menuisier ci buntu jàkk ji suñuy julli ñu ngi daaj kë kë kë liggéey comme nii ak nii chaque cinq heures ma leen di romb benn tàkkusaan rek ma ma wax ne ñii su ma génnee jàkk ji foog ma wax ak ñoom ma ñëw asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam ma ne waa mbokk yi ndax yéen seen xel dal na julli jot ñu noddu fii ngeen dégg ñu lixaam ngeen dégg nit ñi di julli ngeen di daaj ndax yéen seen xel dal na ci loolu benn waaye ne ah waaye maa ngi jéggalu de jéggalu de jéggalu ma ne ko koo tooñ bay jéggalu kan nga tooñ bay jéggalu koo tooñ mbaa du man nga bëgg a jéggalu man tooñoo ma di moom ma julli gi keneen ki ne waaye seex bi ñun ñu ngi julli fii de ma ne ko julli fii ak julli jàkka ñaata tiyaaba la fii boo fi jullee ñaata ngay am soo jullee jàkka ji ñaata ngay am mais boobu ba léegi ñu ngi ñëw jàkka di julli bu ñu noddee rek ñu teg affaire yi dem julli gis nga fu ñu xam nu ñuy jegee nit ñi nu ñuy waxanteeg ñoom nu ñu leen di indee ci yoonu yàlla ba wan leen avantage tiyaaba bu ñuy am ngeen defe ne gaa yi sawaay nekk guddi di yuuxu di tëgg di tëb di tëb di tëb ba fajar kooku tey boo ko waxoon boo ko buñ ko waxoon li ci xiyaamul layli pourtant day xiyaamul layli da waa jooju gars yi dañuy xiyaamul layli dañuy xiyaamul layli dañuy fanaan di tëb di tëb ba 5 heures yenn saa yi sax nit ñi di julli fajar ñuy continuer loolu xiyaamul layli la ak a neexoon ñu dem def ko ci bu yonente bi alayhi salaatu salaam comme ni leen ko diine jàngalee mais xamuñ xoolal tey kooku boo ko daawoo ba ba muy kooku bu ñuy boo ko dajak moom xiyaamul layli moo la mën waa jooju yéen xayrukum fil ja fil jaahiliya xayrukum fil islam ki gën ci yoon ci ceddo ga ba ngeen tuubulee ki fa gënoon garaaw ci mbaax su ngeen ñëwee ci islam moo lay mën waaw. gaa yooyu ngay gis fii tey ñu dugg ci yenn yoo xamante ne wallahi bu ñu leen récupéré woon ba indi leen ci islam wallahi kon ñu gis jàmbaar dañu war organisé woon benn marche Dakar ñu jékki-jékki rek gis benn benn Baay Faal muy dóor. tël di duur ay kur jékki-jékki rek sànni boppam ci tali bi bërëngu yaa ngi ne kii bu nekkoon af sukit kon lan lay def pourtant am na yaqiin bi am na istidaad waaye xoolal côté biñ ko dugal kon loolu mbokk yi ci tënk boo xamante ne damaa tënk ba bërëngu pour ñu mën a def ay discussion tuuti mën a waxtaan ci mbir yi noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala liñ jot a am tuuti yàlla defal ñu ci barke ba ñu mun koo jëriñoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu